Euh, c'est la première fois ñu am un président de la république. Mhm. day toog heure bu ko neex woo presse ne leen kaay leen. ma wax sama xalaat ngeen posé ma question boo xam ne amul ne lii ngay posé président bi. Mhm. président bi ñu posé ko moom tontu ko si ni ko sentire mhm. naam yaakaaroon naa ne le cas de Bougane Gueye Dany sax waru si woon tontu daa waroon wax rek moo ngi si wàllum yoon. ay def li nga xam ne moo ci liggéeyam yem foofee. Euh, ji nga si la da yàgg dégg. nit ñi ne la euh, Sonko jiit Jomaay euh, jiitewul réew bi Sonko mm-hmm. ko jiite. ndax dañ naan Jomaay mooy Sonko. Mm-hmm. waaye dafa am jeu boo xam ne moom la Jomaay ak di dugal askan wi te xamuñu ko. Mm-hmm. te bii dafa am lu am solo moom la ñu def ji nga Macky Sall euh, dem nañ ba tuddee ko li nga xam ne moo di yolom signature. <laughs> ndaxte am na benn Guinéen boo xam ne jàppal ne si boppam. Euh, tra wàllum euh, war wàllum médicament ak yooyu lañ ko jàppee woon bi ñu ko jàppee si wàllum médicament ak yooyu. Uh-huh. jour bi nga xam ne euh, président bi day gracier moom dañ ko signé mu dem. mu génn nga gis ne tey. lu tax la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye uh-huh. bañ a toppoon patriote yi si li ñu bëgg bu ko defoon dañ naan li nga xam ne moo di yolom signature uh-huh. beneen bi nga mën see jàppee lu bëri lenn ñi nga xam ne yaakaar naa ne bi Diomaye génnee wax ñoom kontaan nañ ci ndaxte ñi fare si ku lenn rek la ñu bëgg mooy au sommet de l'État mhm. ñu def de telle sorte que mooy Jomaay ak Sonko ñu mhm. laalante boo xoolee loolu moo nekk seen campagne ginnaaw gi nga xam ne Sonko choisir na Jomaay da nga doon dégg ne même Yërim ak Famba nekk ca beneen télé ba ne mhm. laalan maanaam Jomaay ak sonk fi ñu toll nii dañoo am ay jafe-jafe nga dégg ne daa am camp Jomaay nga am ni nga xam ne moo di camp Sonko mais sujet bi dafa am loo xam ne double jeu bu ñu defal te peut nit yi xamuñu ko Ousmane Sonko mi génn wax dafa wax en tant ki nga xam ne moom mooy njiitalu li nga xam ne moo di Pastef les patriotes lu ma wax mooy ñi fare ci Pastef dégg naa leen te seen bëgg-bëgg dinaa ko def. Mm-hmm. waaye naam comme le président de la république ba Diomaye Diakhar Faye moom moo signé moom la mu wax mooy je suis président de tous les sénégalais. Mm-hmm. maanaam dorénavant njabooteewu ma les cinquante quatre pour cent mais damaa njabootee de tous les sénégalais. Mm-hmm. loolu lu mu siy signifié mooy il est le président de la république beneen bi mooy bëggul tey ñu tabb Samba Ndiaye suba mu deñ maanaam bu dindi woon bu toppoon si 54 pour cent yi dañ naan Bassirou Diomaye le président de la république yolam signature la bu defoon loolu dañ naan le président de la république benn dañ naan yolam signature la ñaar bu toppoon sama bëgg-bëgg wala mu topp bëgg-bëggu patriote yi danaan le président de la république nekk fi pour tous les sénégale dafa nekk li nga xam ne moo di les 54 pour cent. Mhm. beneen bi li nga xam ne le président la république moom la ñu wan xam nga lu mu mhm. mooy. nekkul ni Sonko mooy jiite réew mi. Mhm. c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mooy jiite. Mhm. ndaxte bu nekkoon ne Diomaye dafa topp ci bëgg-bëggu patriote yi. topp ci bëgg-bëggu maanaam ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko jàppal ne kon la ñuy wax mooy léegi jàppal ne Ousmane Sonko. Mhm. moom mooy diggal le président de la République. ñu defal ñu benn débouché boo xam ne xam naa ne dañ koo déggoo toog ko waxtaanee ko mooy Ousmane génnal nga dala xelu patriote yi ne leen li ngeen bëgg man loolu def. Diomaye génn ne leen yéen patriote yi li ngeen bëgg man defuma ko. xaw ma ndax comprendre baax baax dorénavant président bi moo ngi bëgg a dalal xelu tous les sénégalais mooy nekk fi waa Pastef rek pour tous les sénégalais la fi nekkal mhm. moo ngi koy wax boo leen ko bëggee boo leen ko bañee le président de les sénégalais mhm. maanaam ngeen voté ma ngeen bañ maa voté jàppal ne man maay président tous les sénégalais mhm. léegi wane mooy am nañ un président de la république ñu doon wax naan jomaay Sonko jiite jomaay jiitewul léegi xam ngeen ne Sonko am na lu mu bëgg ñi ko votel ñu votel jomaay am na lu ñu bëgg mhm. <coughs> waaye jomaay si boppam nee na leen defuma lool beneen aussi loo si jàppe le cas de Samba fii laa leen koy waxee mhm. bu dul tey di suba Samba Ndiaye dina tëb et je sais que nañ mbirum Samba Ndiaye ba pare mhm. ndaxte boo déggee le président de la République Bassirou Diomaye lu mu wax mooy et la a raison mooy waruñoo nekk si réew boo xam ne dañoo jàpp ne nit koo xam ne am nga loo waxoon ca yenn wax tey maanaam ku àndul woon nag Pastef les patriotes bu ñu war a defaraat réew mi waroo cee bokk mën gëw ma lool man damaa gëm ne képp ku yàq réew mi bu ñuy defaraat réew mi yow waroo see bokk nga dégg ne jomaay mu ne est-ce que nekkul ni yéen ñi nga xam ne dañoo fare woon feneen waruñu leen jël xam nga appel à bi la moo tax teelu ñu ko def appel à candidature bu ñu ko defoon jàppal ni ñu bëri ñu nekk Pastef dawaaw ñu ko laale ndaxte lu ñu am am diplôme beneen camp bi wala ñeneen am nañ ay diplôme leneen li nga xam ne moom nga si euh, mën a jàppee dëgg-dëgg te la président de la république wax na ko mooy nit mën na wax kàddu ñu baal ko. Uh-huh. waaye li ñu mënul baale mooy gestion. waaye léegi sàlla gestion wu Samba Ndiaye bi nga xam ne rapport jàpp na ko cinq millions dégg naa Cheikh Bara di ko jéem a layal waaye du jàll. rapport da koo jàpp ci cinq millions beneen bi mooy le même Samba Ndiaye ci boppam ni ma ko waxaatee moom parti bi nga xam ne moo di MD ci boppam recruté woon na soixante dix personnes yoo xam ne népotisme ñoom ñëpp ci parti la ñu nekk et le même Samba Ndiaye au moment où ñu soxla woon agent marketing moo dem andi li nga xam ne moo di benn couturier beneen bi lam fa ba ci wàllum dette beneen bi li nga xam ne mooy prestataire yi nga xam ne moo doon liggéey et que président bi nee na mën nañ baale lu ne waaye mënuñoo baale li nga xam ne tey koo xam ne rapport da ko épingle mm-hmm. fii laa la ko waxee cool yi bëri na et dama jàpp ne li patriotes yi doon xeex loolu mooy dëgg mm-hmm. surtout la cas de Samba Ndiaye Samba Ndiaye na muy naaj muy nawet ak heure bu mu mënti doon Samba dafa war a jóge li nga xam ne moo di place mm-hmm. mais bu nekkoon ni si moment boobee président bi def na bëgg-bëggu les 54 pour cent wala bëgg def na bëgg-bëgg li nga xam ne moo di patriote. Uh-huh. boobaa dañ koy jàppee benn ab yolom signature beneen bi dañ naan kon ñenn la jiite. Uh-huh. mais man damaa jàpp ne fii ak ñu jugee élection Samba Ndiaye moom mooy démissionnaire si boppam ndaxte am na rapport yoo xam ne dinañ ci ndaxte jomaay jomaay euh, nee na mën nañ baale lu ne. rawatina li nga xam ne moo di rapport. Uh-huh. leneen di aussi li nga xam ne moom lay wone surtout le cas de Samba Ndiaye mooy du ma wax le président de la république nga def nañ moralité. mais je sais le cas defuñu ci liggéey bi nga xam ne moo war saa su ne ni ma la ko waxee ne ji nga système bi. Mhm. jàppee ko ab virus. ba tey dee bëgg dund waaye virus bi mënul développé mënul woy xam nga lu tax mhm. ndaxte anticorps bi anticorps yi mooy ñan lay patriotes. Mhm. xam nga loolu aussi li muy wane pour la première fois ci histoire um Sénégal nga gis un président de la république tabb ki muy tabb nga gis ñi nga xam ne moom ay directeur lañ moom moo signé ñu ne ko ànduñu ci li nga xam ne moo di Samba Ndiaye loolu moo lay wane Sénégal kon toll na ci benn état bu démocratie. xam nga ñu bëri dañ doon wax naan non dañoo nekk euh, ci réew moo xam ne euh, jàppal ne euh, maanaam maanaam ñoom lu leen neex rek loolay am. mais bi président bi am na lu mu bëgg am na lu mu def mais ñeneen ñi nee nañ ko àndoo si yow mais Macky Sall ngay gis nit ki sàcc rapport mu jëlee ko foofu yóbbu ko fi nga xam ne mooy ci yokkal ko ay nombre rawatina Samba Ndiaye Samba Ndiaye problème am. même bi mu ñëwee PDS am na vidéo bu ma seetaan démb waa PDS dañ ne saabu euh, waa PDS si boppam. Mhm. Euh, waa PDS si boppam dañ ne dañ ne dañ ne dañ ne ñoom Samba Ndiaye si boppam euh, da leen jaaxal loolu lu muy wane. mooy euh, ji nga si politique dañoo dañoo nekk wàllum euh, transhumance ak yooyu. Mhm. yàgg naa am waaye aussi le kaada de Samba euh, bu dee tey di suba ak jour bu mu mënti doon damaa jàpp ne Samba Ndiaye moomee dafa war a jóge fi nga xam ne foofu la nekk ndaxte fi mu nekk du du place am rawatina Samba Ndiaye la boo xam ne jàpp naa ne rapport da ko da ko épinglé dafa am vidéo boo xam ne moom laa lay wax nii nga déglu surtout si kaawu Samba Ndiaye pour ngeen xam ne Samba Ndiaye. pour ngeen xam ne Fane Ndiaye mbiram yàgg na. lii mi ñu génne ci bureau bi te mu yoroon kàddu kuréel gi. yàquñu conférence de presse il faut que ñu attirer la l'attention des des autorités politiques que euh, ñoom ñii li ñuy doxal sëriñ boobu ak équipe am li ñuy doxal du dëgg du yoon. Mhm. te loolu buñ ko deful duñ ci bu nit ñi duñu mën a xam li xew. doomu aadama waroo hypocrite. maanaam di matt di ëf mooy Samba Ndiaye dafay wane ci kaw ne Ablaye Wade la àndal mais au fond ñëpp xam nañ ne pour. maanaam fii si boppam aussi. maanaam vidéo bi li ma la si woon séquence bi ma la si woon boobu Samba Ndiaye moo ngi PDS si boppam. Mhm. réunion la waaye waa Samba waa PDS si boppam xamuñu woon Samba Ndiaye fan la féete dégg nga femme bi nga xam ne moom la mujjee wax. Mm. li mu ne ah, Sama Ndiaye dafay de wane ne moo ngi PDS mais moo ngi feneen mais tey si politique bi. Mm-hmm. Euh, fi nga xam ne xale yi fa lañ taxawee ñi fare si Pastef wala ndaw ñi dëgg-dëgg ñi jug ne Samba dafa war a dégager. Mm-hmm. damaa jàpp ne ak lu mënti xew Samba dafa war a jóge ndaxte rapport da ko épinglé. Mm-hmm. beneen bi aussi mën mënuñu woon ay xale doon xeex. di jaayante seen bekkeen ngir réew moom changé et même personne yooyu ñoo doon wax xale yi ay terroriste lañ ñoo doon wax xale yooyu ku ci dee yaa perte waaye aussi ñoo doon saaga xale yooyu rawatina xale yooyu ci boppam gox ba nga xam ne fa lañ dëkk Samba dëkk fa Samba da leen doon tegal bépp pression te Samba tey boo ko si mu ñëw lenn la lu dul mooy wàllum intérêt mais damaa jàpp ne président bi kàddu yi mu woote mooy dafa fee tegal képp koo xam ne moo di ab sénégalais la mm. mais man damaa gëm ne Samba mooy démissionné. Samba si boppam fii ak i bis yu ñu jëm maanaam man gëm naa ne Samba dina démissionné ndaxte bu rapport yi tàmbalee Samba dina tal leneen te président bi wax na ko nee na man de moom protéger kenn te Samba moom euh, jëfinam maanaam leerul gis naa démb nag am ñu ko doon jéem a layal waaye Samba ak lu mënti xew dafa war a jóge fi mu jógee ndaxte ñii toog si nguur gi ñoo ne ñu uh-huh. képp koo xam ne sa loxo dafa taxewoon si loo xam ne alalu réew mi nga luubal ko uh-huh. wala tey rapport épinglé waratoo mën a nekk fi nga xam ne moo fi nekk uh-huh. président de la république kaddu yu mu yëkkati yëpp wax ko Samba dafa war a jóge fi mu nekk et loolu mooy li nga xam ne moo di dëgg muy Samba mu di keneen képp ku rapport jàpp mm-hmm. képp koo xam ne da nga luuba alalu askan bi bu ñu defaraat réew yow du la teel a dénk mm-hmm. dañ laa waroon wax ne li ñu la dénkoon nan nga ko yore mm-hmm. et dama gëm ba tey les patriotes ñoom ñoo am dëgg si li nga xam ne mooy la cas Samba Ndiaye ak lu mënti xew Samba dafa war a jóge fi mu nekk exactement alors euh, ci euh, cas Samba Ndiaye Samba Ndiaye boobu nañu des ba tey ndax gis nañu ay membres yoo xam ne ñoo bokk ci parti bi di PASTEF euh, daal di soutenir ki nga xam ne nag moo di PASTEF si élection législative yi nuy daal di dëgmal gis nañu ki nga xam ne nag moo di maître Sall moom aussi di ñu xamal ni carrément dafay votel part bi di PASTEF Doura Balde fële ca ca.